yooyu mi ngi tàmbalee woon ci capitaine euh, Omar Touré Seydina Omar Touré moom moom nag booba ma nga woon section de recherche moo doon enquête ginnaaw bi nag la ñu xam ne ci biir enquête bi da ci doon wax ak Ousmane Sonko ci la ñu ko rajee woon. loolee nag euh, doon euh, wéy ba waa IAM jëloon ko mu waroon a jàngale foofee waaye nag njàngale moom mujjul yàgg ndax ci ayu bisu bii la tàmbali tey jii lañ ko xamal ni nag teqalikoo nañu ak moom ñu xool nag ndax. code de justice militaire daf ko tënk ci loo xamante ne nii dootut mën a liggéey yenn xeetu liggéey yi am déet moom moomu nit ñi nag euh, ñi nga xam ni ñoo fare ak Ousmane Sonko ubbil nañ ko foo xam ni mënoon nañ ko fa defal nag ay koppar ngir jàppale ko ñu ne ñaar fukki million lañ ko yéene foofee jomaron capitaine Seydina Oumar Touré ñàkkaat liggéeyam gannaaw ñetti fan yoo xam ne waa UAM dañ ko joxoon sens ngir mu jàngale foofu école boobu nga xamante ne ki di député Moustapha Bamba Guirassi moo ko jiite mu tàmbale woo di jàngale li nga xam ne mooy mbirum droit ca UAM liggéey bu bees boobu nag ki di capitaine Touré mu ngi doon xamle ne rek lii da ko doon gënt rek ndax lii la soxla woon gannaaw bu mu nekkee xale waaye gënt boobu jot na waaye ni mbir mi doxee Sankung Fati nekkoon fii colonel bu gendarmerie ne ko bett lool ndax xam ne na ne benn loi terewu ko mu am beneen liggéey loi bi lenn rek la mënatul servir ci takk der parce que dañ ko punir ni dafa waroo ak li mu waat waat ci bi kaw bi bi tax mu mu ñu jël ko comme comme euh, kilifa ci gendarmerie dafa waroo ak waat boobu force de défense takk der daa mënu ko liggéey foofu mais feneen buñ ko wóoloo buñ ko wóoloo mën dafa liggéey mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ko jiitu yoo xam ne rajee na leen mais am nañu beneen ñu bari gis nañu ne dàq bi jaarul ci yoon ndax capitaine Touré mën na ba léegi di wéyal liggéeyam mën na sax dem ca fonction publique bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu wóor bu bàyyeekoo ci ay kilifa yu nekkoon ca gendarmerie capitaine Touré donte dañu wàññi gradam daal di ko dàq ci gendarmerie règlement de discipline générale bu armee moo jaar foofu waaye du benn code de justice militaire moom moo ko xañ loolu ñu bari gis ne comme loolu amul kon ñàkkul li nga xamante ne mooy ay droits civiques militaires ak politique li leer rek mooy capitaine Seydina révision administrative ak statutaire la ñu dëgg ci kawam ñu ñu waxtaanal ne ay droit am comme ñoo ngi fi kon mën na ba léegi di wéy ci privé bi wala ci public bi ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi weesu la tàmbale woon di joxe ay cours waaye mbetteel la am gannaaw bi ko waa direction IAM contacté di ko xamal ne rek dañu am yéene rek ngir jeexal collaboration bi am ak moom donte jéem nañu jokkoo ak kilifa bu IAM waaye mbir mi antowul mbir mi nag bett na lool capitaine Touré moo tax muy ñaawlu bu baax a ñàkk na liggéeyam waaye ndimbal bu bari jamono ji mu koy sentu ndax am na ñoo xam ne dañuy jóg rek ngir daal di boole koppar bu bari di ko jox liñ ci sentu rek mooy ñaar fukki million ci suñu koppar lañu soxla ngir jox ko ci loxo kii di capitaine Seydina Oumar marture